من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى وصلاة وسلام ala man adhatha bi jamalihi quluban wa afhama bi jalalihi afwaha wa haada min almafaqiri adnaha wa alaha wa sumiya inda allahi bi muhammadin wa yasin wa taha wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim amma baadu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 xëyati nañ ci suba si ñu ngi ñaan sunu borom yal na defal nu kenn lu jàmm ñaan kilifa diine yi yàlla dëgëral leen dolli wér yi dolli suture yi waaye ñaanal waajur yi yal na yàlla bàyyil ñu leen fi nu yàgg fi lool ziyaara ñëpp rawatina soppe yi xarit yi am di jàmm yi bàyyuma kenn bàyyuma fenn ñaanal sunu directeur Haj Makhtar Sylla yàlla taxawul ñu ko biir ak biti bi jaahi Moustapha sallallahu alayhi ak personnel bi ci ginnaaw mi yëpp ànd ak moom ci liggéey bi ma teg nuyoo bi ci soxna loxol Ayda soxna Ayda ci loxoom laa koy teg mu yóbbaale ñëpp géew mbokk yi maa ngi ci Ibrahima ibnu Adham ci juróom benneelu dénkaaneem bi nga xam ni moom la wax ni euh, jafeñ-jafeñ yi ngeen am ci réew mi ba tax réew mi neexul na ngeen ko bëggee ba tax la ngeen bëgg ci seen njaboot meluñu noonu valeur yi ngeen amoon ngeen ñàkk ko wërsëg wi barkelatul li ko andi danaa leen ko wax su ngeen ko fajee rek mbir ma delloo fa mu nekkoon moom lañuy ñu Ibrahima ibnu Adam di wax boobu ba léegi ba démb maag yéen ñu ngi daaneel ci juróomeel bi nga xam ni ne na xam nañu aljana mais sàkkuwuñ ko tey nag ibrahima ibnu adam ne suñ juróom benn kazalika rek mooy tamit xam ngeen safara waaye dawwa leen ko wa araftumu naara walam tahrabu minha ibrahima ibnu adam nee na xam ngeen safara yéen xam ngeen safara ko waxal mun la safara moom musiba la ñëpp xam nañ ni kenn bëggu faa dem waaye Ibrahima ibnu Adam nee na waaye yéen walam tahrabu minha yéen dawoo leen safara de yéen seen jëf yëpp jëfi koy dem safara la a ah, mu ne loolu day gàllankoorum réew réew su fekkee ñëpp ragal safara te ku ci nekk bu jëfee nga da jëfam bii jëfu koy dem safara la mu ne xam ngeen ni réew mi am na gàllankoor am ah, moo du ko waxal daa ragal safara réew mi ñëpp a ragal safara coow li muy bëri bëri gars safara waaw ah, koo waxal daa ragal safara yaa ngi fàttaliku sax bu njëkk ku lay ñaanal ñaan bu bon naan yàlla nga dugg safara <laughs> boobay ñaan bi gënoon ah, la ñaanal yàlla nga dem safara la lay ñaanal parce que safara la ñëpp ragal ay moodu nañ waxante dëgg safara yi àdduna bii rek dañ koo ragal lakk ñëpp ragal lakk lakk bii rek fii ci àdduna nag dañ koo ragal waaw yàlla nag maytu leen fële nag am na fa safara woo xam ni moom buy lakk du bàyyi dara moo tax da koo tudd ci alquran ne am na ñoo xam ne dañ ma tooñ tooñ woo xam ni faaw ma tàbbal leen ci safara woowu ngam na koo programme te safara ci boppam day musu ci safara woowu moom safara woo garaaw de moom safara ci boppam safara ci boppam maanaam day muslu moom ci safara woowu moom moo tax bi yàllay wax ak ku mel ni Walid bun Muqirata nga xam ni dafa sonaloon Seyduna Muhammad ne ci wetam di ko xas ne ci wetam di ko di ko gaaral lu yonent bi tabax mu daaneel yor alalam di financé pour ñu xeex yu yonent bi ci makka bi yàlla wax ak moom daf na sa uslihi saxara moom fa ma ko jëmee foofu lañ tuddee saxara foofu mooy safara wi nga xam ni safara sax da koo ragal <laughs> mooy sa uslihi saxara mais li dañ ko ci yàlla waaye yàlla saxara moom nu mel mu ne Muhammad wa ma adraka ma saxaru xamagoo nu muy mel mu ne ko ah, mu ne ko laa tubgi wala tadar lawaaxatun lil bashar mu ne ko yëgoo ne saxara li tax ma bëgg ngeen ragal ko maytu ko mooy moom du desal dara ci nit beneen bi safara la woo xam ni soo ko juwee ñu la fay dugal day wàjj sa kanam balaa ngay yegsi allahu akbar lawaaxatun lil basari safara la woo xam ne so la malaaka yi takkee jëme la ca nee na moom day wàjji kanam moom kanam gi balaa muy ñëw day fekk mu wàjji ko bu yàgg balaa yegsi ci ci safara wi yàlla na safara woowu sax de juróom fukki juróom-ñeenti malaaka laa ko dénk ñoo koy garde ñe moo ñoo buuse maître dañ koo téye ngir doole ji mu am ak fipp mi fipp alayha tisata achara waaw fukk ak juróom benn ci ay malaaka ñu ngi fa taxaw di ko garde boo fukk juróom benn ci ay malaakaa ngi taxaw di ko garde kenn ñemewul a poussé waaw ngir lan ngir safara wa na mu danger ay mbokk yi moonte de safara woowu yàlla wax ca lay tabbal walit bu nu xirat ak ñu mel ni ñoom moonte ni am na am na ñu yàlla wax nii la leen fa tabbal bi ñu leen ko laajee déglu leen li ñu tont am na ñu fay tàbbi moo du ñu fa dugg bi ñu leen ko laajee ne leen mais yéen maa salakakum fi saxara yéen lan moo leen tàbbal ci safara wi nga xam ñëpp a ko doon daw boom moom tàbbi safara sax am na mais bii bii moom kenn ñemoo ko yéen nu ngeen xullee ba ñëw fii waaye mbokk yi ma bëgg ñu déglu tontu yi ñoom leneen fa tàbbal mbaa ñun amewuñu ko maa salakakum fii saxara lu ñu wax xaalu lam nakku min almusallin walam nakku nutimu almiskin wa kunna naxuudu ma alxaaidin wa kunna nukadibu bi yowmi diin ah ñoom danee na ñeent yi daal moo leen andi saxara mooy safara wi nga xam ni yàlla détaillé na ko ci alquran bëgg ñu ragal ko ñi mu fa tàbbal nee na li leen fa dugal mooy daawuñu julli <laughs> daawuñu julli ah Moodu neexu la wax nag waaye xamoo leen ne yonent bi ne na bokk ak lekk sax kudul julli day yàq sa xol amee eh, réew mu ñu nekk nag tabarfakallaa ñi dul julli ëpp ñi julli Ah, bu yàggee ñi dul julli yàqaale ñuy julli lépp moo ko yàqadoo aha yonent bi nee ku dul julli di lekkandoog moom bu yàggee day yàq sa melokaan yàq sa jukk sa xol lay wowal muy dugal loxoom ngay dugal sa loxo bu yàggee sa xol day wow mbokk yi ana ñu tey ku ne xoolal ñi ngay bokkal anañu ngay bokk ay nit waxtu jot nga jógew du di julli ñoom duñ julli te yaag ñoo may bokk lekk yaag ñoo may bokk waxtaan yaag ñoo may bokk lépp kenn ñi mu la wax nag waaye jikko woo xam ni ku ko amee neen waxuma rek waxuma rek ragaluma safara mais man safara bi yàlla yi tëkkuwaatee sax ragaluma ko Ibrahima ibnu Adam nañu da ngeen am problème mooy yéen xam ngeen safara mais ragaloo leen ko dawoo leen sunu borom ne ñu leen fa dugal mooy dawuñ julli ñeneen ñi moom nee na li leen fa dugal mooy walam nekku nut'imul miskin duñu tane kenn dimbali la jikko la ku ko amee ne ma safara waaye ma safara mais safara wi yàlla tëkkawaate sax ragaluma ko am li nga am denc ko gis nit ñuy souffrir te taxulaa génne mbokk yi loolu day yàqum réew si gileen ngeen xool li am ci réew mi day denc lu bari wëlbatiku moodu ci ñu amul lu bari li ñu yor mu koy jéem a nangu ay mbokk yi kañ la ñuy gore ma ne nit day denc lu bari wëlbatiku topp ci ñu amul dara di leen nangul seeni mille francs ki seeni deux mille di ko récupérer ci ñoom di dajale ci li mu yor ay mbokk yi kañ la ñuy gore te li ñuy daw nii di ko dajale kenn ci ñun du ko lekk kenn mënul waat ne li may dajale dama koy lekk kenn ci ñun du ko lekk yàlla ne am na ñoo xam ne bu ñu tàbbee safara ma won leen ko ci écran yi ngeen laaj leen dañ naan ñun walam nag ku nut amul miskin ñun amoon nañ taraanga mais daawuñ dimbali ni daawul néew doole ba ñu yëg ko ci suñu xol duñu romb ku néew doole ba sentir benn sentir nit duñu jàmbat dara ba ñu sentir dara suñu xol du yëngatu lu ngeen foog moo da am na ñu dëgëree noon de am na ñoo xam ne seen xol du yëngu pour gis gis nañu nit ñuy souffrir nii seen yoon newu ci seen yoon newu ci am na ñoo xam ne ñu ngi ne ñu ngi toog ci ay taraanga te sax bu doon taraanga yu ñu moom la nga mën ne waaw waaye taraanga yu réew mi moom ñu toog ci ta te xoolal ñu sax souffrir nit ñi seen yoon newu ci kuy souffrir sama yoon newu ci lañ lay wax allahu akbar kañ la ñuy gore kañ la sunu xel di ñibbi ci yàlla kañ la sunu réew di jag Ibrahima ibn Adam nee na yëg ne loolu jagalul réew moo tax ñii ragaluñu safara te nee na képp ku ngeen séen réew mu ngeen séen ñu xam safara par ragaluñ ko réew moomu jag du fa am beneen bi mooy wa kunna naxuudu maal xaa'idiin am na ñoom biñ leen séenee saxara laaj leen lu leen fa tàbbal dañ naan ñun daal euh, dañ daan def lu xew rek ñu xurmbax loo àgg ca dañ daan def lu xew ñu ànd ak moom lu xew rek ñu ànd ak moom bërki démb gis naa fi benn booy bu génn lu xew rek ñu ànd ak moom waaw lu xew rek ah lu xew rek li ci li maam kenn xamul li xew lan la waaw nit ku génn taxaw eh, maam gis nga Modou léeg-léeg sax gis ko dem ci ab mbir xamul sax waa ji li mu wey daa gis ñëpp dem rek mu ñëw moom moom du dégg sax li waa ji wey moom mën nam sax li waa ji wey amu ci dara mais da di gaayee dem moom mu feccali foofu pour mu fees pour ba pour béy jeex bu kenn am fu affaire bi ñu tas ko ndax dafa bëri dafa bëri nit loolu rek lañ ci bëgg maam day dem rek moom xamul dara ci li muy dem wa kunna naxuudu maal xaaidiin beneen bi mooy wa kunna nukazzibu bi yawmi diin am na ñoo xam ni li leen tàbbal saxara mooy dañoo gëmul ni dee dekki taxaw ci kanamu yàlla mu àtte am na ah ngeen foog am na ñoom ba léegi ba nii nii may waxee ak yéen gëmaguñ ñi dañuy dee dekki taxaw ci yàlla yàlla di àtte jaam yi ñoom gëmuñu loolu yow yaa ko gëm mais ñoom gëmuñu ko Modou Moussa dawale leen xel ku xalaat ni damay dee taxaw ci kanamu yàlla mu àtte ma mbokk yi ma laaj waxuma doo jubadi de waaye dama ne jubadi bu lay bett ngay jubadi waaye xam nga ne doo xalaat jubadi di ko waaj di ko teg mu doon technique boo xam yaa koy organiser wala sax nga jël jubadi def ko saw yoon nañ waxante dëgg waaye am na ñoo xam ne tey ñoom ñàkk jubadi moo leen di jaaxal waaye jubadi jaaxalu leen parce que ci jubadi la dox ñoom kay jub moo leen jaaxal mais ñoom jubadi jaaxalu leen parce que ci la ñuy dox tax mbokk yi bokk na ci sunu gàllankoor mooy xam nañu safara mais kenn ci ñu ragaloo ko xam safara nag te ragaloo ko day jur day jur loo xam ni mooy tax réew mi nga mi nga ne yow moomu yow mi xam safara ragaloo ko réew moo ne réew moomu jag du fa am waa léegi nag su fekkoon ñaari nit lañ ci am sax Moodu mu tane bu doon ñaari nit rek lañ am ci réew mi ñoo xam xam nañ safara ragaluñ ko wala ñetti nit ñoo xam ne xam nañ safara ragaluñ ko bu doon loolu lañ am mu tane waaye Moodu bu réewu lëmm nekkee ñu ne quatre-vingt-dix pour cent bi ñoom boo leen xoolee xam nañu safara mais ragaluñ ko moo tax nee naa ñun sax léeg-léeg bokk na ci ñi ñu ray bokk na ci ñi ñuy rey mooy kilifa yi garantil nit ñi aljana ñoom yëguñu ne bokk nañ ci ñu sànk nit ñi bokk yi mboolem kuy kilifa yor njaboot ñu topp sa ginnaaw yow war ngaa bokk ci ñu participer ci réew mi pour li ko jagal te pour nga participer ci réew mi ci li ko jagal mooy nee leen aljana nit bu fa bëggee dem day jaamu yàlla wax leen ni safara ku ci bëgg a mucc da ngay moytu lu bon moo tax ma ne kilifa yi njaboot gi topp am nañ ci paar ci lii Ibrahima ibnu Adam di waxtaane mbokk yi aljana dañu koy sàkku waaye safara it dañu koy daw rasulullahi sallallahu alayhi wa ne maytu juróom benn juróom-ñaar ñu ne ko tax mu ne juróom-ñaar yi moom yépp day tàbbal nit safara bokk yi juróom-ñaar yooyu man ak yéen dañuy dajewaat suba ma waxtaan ak yéen ci juróom-ñaar yi Seyduna Muhammad wax ni képp ku ko def takkal sa bagage te xam ni yaa nga jëm safara moom la tuddee sabaa mubiqaat juróom-ñaar yi nga xam ni moom la sayduna muhammad site wax ni ahlu hadis di wax ni moom la yonent bi wax mooy juróom-ñaari bàkkar yi gën a ci kanamu yàlla nga xam ni juróom-ñaar dafa yàgg am doole yàlla cité na juróom-ñaari bàkkaar berleen fe ne yii moom ko def boo ma maytuwul ko def rek safara laa la jëmee mbokk yi juróom-ñaar yooyu mën ak suba lay doon bu ñu dajawaatee ci jilsatu nabi maa ngi teg baaraam joxaat leen rendez-vous suba ñaan sunu boroom yàlla defal ñu tawfiix ba ñu dajawaat mag yéen gërëm nañ ñëpp sant na ñëpp iza aradtum salamata al ardi fattabi'u muhammadan wa ali haytal umami mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ومن أضل ممن يدعو من